Hmm. yàlla def na <clears throat> da nga doon nit koo xam ne da ngay da ngay da ngay da ngay octempéré da ngay dalal xel lu nit ñi <laughs> compétition waaw xam nga <laughs> waaw du fu ñuy préparer équipe benn non xam naa loolu pour être clair man xam naa loolu mais dama gis condition yi ñu demee mondial parce que j'ai précisé dès le départ qu'on n'a pas eu de match amical c'est la faute pour préparer on a deux matchs C'est la faute. Non, directement, libérer les joueurs il y a eu des nations qui ont joué avec Mais c'est le calendrier FIFA bi tamit ak euh, calendrier euh, Ligue des Champions parce que calendrier à la fédération. Oui, oui, mais c'est-à-dire en quelque sorte aussi mm. euh Coupe du monde joué joint la doon Monsieur, musul mm. egg moment Oui. bon, bon ça, les jours ont été surutilisés. Donc, autant et d'ailleurs, euh, la Fédération internationale des jours pro, on dit que... la Fédération n'a pas su peut-être... Voilà, donc la FIFA n'a pas, pas joué le jeu.

surtout que tu n'as pas ce meilleur donc il faut tu non non salut Joseph euh, on ne on prépare pas une équipe en compétition dans la compétition. parce que match match bu ci compétition impact compétition bi équipe bi. Euh, dem compétition jox la moyens la timing bi jox qui soit de soit de la fédération. Mm-hmm qu'il soit de de l'équipe nationale hmm. pour nga préparer une belle équipe c'est-à-dire gars yi nous ñu xel équipe euh, bu compétition mu jël coupe du nous dynamisme bi naka la commencer, commencer euh, madame, rajeunir équipe bi qui indi une confrontation entre les joueurs tout en restant dans le contexte de l'équipe Madame, des équipe bi ba pare di indi ñoo xamante ni si dalay leer ni boo demul kii dem boo doxalul kii doxal parce que démb man serait moi le le le le coach Boulaye du génn damay génne Ismaïla Sarr en deuxième mi-temps tey boo ko waxee ñenn ñi dañ naan la yow xanaa da ngaa dof mooy suñu meilleur moo dàq daw nangam sangam dama lay génne parce que tu n'es pas tu n'es pas dans ton état de forme normal. dama lay génne je te fais sortir la prochaine fois da ngay da ngay tu vas prouver plus que ça. di nga gën a góorgóorlu parce qu'on n'a pas besoin de dire que nit ki nit da nga am lo xamante si yaa ngi ko lima soxla joxomako mais je te fais sortir deuxième chose on va vers une euh, euh, une compétition ñuy jël ñuy wuti ji coupe Li Cheikh Omar Talla di wax c'était comme si bo gisee changement yi daf doon gérer match bi pour am match nul c'était affiché parce que mëno gis yow ce milieu de terrain ñep nga tek ay défenseurs y a aucun milieu offensif qui tek ci rideau bobu non jël leen ñoom ñett ñëpp teg leen ay défenseur aligné leen ci milieu terrain bi yow léegi kan mooy génne bali kan mooy passe les attaquants kan mooy def les passes ci ci ci ci excentré yi ñuy daw. <laughs> mais ça Aliou Cissé rek moom laa gis si àdduna trois milliers défensif ñoo xam ne ñoo bokk même profil. ah voilà ah, léegi loolu kooku gis mu def ko xam nga ni kii il n'est pas venu pour attaquer il n'est pas venu pour chercher un but loolu moom moo tax li gars yi di wax naan la dañu doon dem ba si kaw di am problème finir, finir, la stratégie. Conclure. Mais changement aussi. à l'une si c'est naturellement euh, da ngay xam aussi dafa am nit ku nekk ak euh, façon nu muy doxalee aussi nga def ce premier degré def yëpp ba doon un coach ba taxaw fi nga taxaw kenn ku nekk dafa am nooy doxalee. Mm-hmm. am na ñoo xam ni coach yo xamni ni bu ñuy def changement dañuy génne joueur ci poste bi duggal benen joueur bo xamni benen poste lay football waaw daal di jël beneen joueur avancé loo ko wala ñu jël beneen joueur reculé loo ko. mu nekk interchangeabilité. voilà mais Aliou Cissé à chaque fois que buy def changement poste par poste lay def hmm. donc du stratégie bu muy indi ci biir jeu bi. man jël na coupe jël na coupe d'Afrique ñun ñëpp pour Sénégal ñu tàcc ñun ñëpp suñu coupe la ñu indil mais à chaque fois da ngay gis ni dafay am lu des malgré qu'on a eu euh, nu mu tuddati. Euh, am nañu coupe de coupe d'Afrique bi mais dafa am yu baree bari yoo xamante ni si dafay des à chaque fois mais c'est trop tôt aussi pour que ñu ñu pour qu'on jette l'éponge mais li nga xamante ni si moom la ñu ci gis desale ko ci mu doon ay problème dinañ ko dinañ ko yëkkati ba ñëpp gis ko euh, on a besoin d'esprit d'équipe moom la ñu wax ñu ni des fois il y a certains joueurs yoo xamante ni si duñ leen woo ci biir tanière bi nangam sangam la façon de jouer xooluñu ko conservation de balle xooluñu ko ki dàq dribble xooluñu le meilleur passeur xooluñu on a besoin de but de victoire de victoire on a besoin de victoire gañe na ak nu nu ko gagner gañe lañ soxla waaw ak stratégie bu ñu indi gagner lañ soxla finalement pour le match c'est le résultat qui compte bien sûr voilà on va revenir en force joueurs yi dinañ mouiller le maillot dinañ daw dinañ marquer dinañ dor ay tacle dinañ défendre dinañ défendre dinañ def tout ce qu'ils peuvent pour avoir une victoire mais stratégie daf ci baax dafa am foo si une deux xel mu yegg ci camp yi daf am solo et on n'a pas eu un finisseur ñaata tir cadré la ñu am démb l'équipe technique le directeur directeur technique bu ñu a ñuy tir cadré la dans les Sénégal mm-hmm. on a amené l'équipe Van der Vaart de football loo équipe du Sénégal mm-hmm. ba ci 15 dernières minutes il fallait gagner match parce que, parce que l'équipe a pompé, pompé, pompé sur, le plan offensif. Parce que nous venons d'être l'équipe championne d'Afrique. Nous venons pour ñëw ni dañuy gagner Donc dañu tegal stratégie yoo xam ne da gis ni pour conserver le match ñu ñëw équipe bi pompé pompé ba son à l'usure légui ni boo seetloo ñu ci baré, bari et man je ne sais pas à Cissé ndax bi koy def il a fait sciemment Abou Diallo dañ là la c'est incertain que mu ñëw far yàlla mu ñëw c'est un il est blessé oui dafa blessé Pape Abdou Cissé dañ naan la dafa blessé euh, Kalidou Koulibaly dañ naan la dafa blessé daf koy sooxaale euh, nga yor ci trois nga am potentiel boo xam ni pépinière boo xam ne ay xale lañu yu mën a fubal. trois yooyu yëpp nga gis ci hmm. football Brésil bi muy indi Ronaldo premier coupe du monde bi mu koy indi mu doon xale. ñu indi ko nga gis Mbappé bi muy bi ñu koy njëkk a si terrain bi. nga gis à son plus jeune âge. Eto'o hmm. Fils bi muy njëkk football. en équipe nationale à son plus jeune âge pourquoi ne font ne font euh, on ne fait pas confiance à cette jeunesse ces jeunes là qui sont dans la tanière Donc c'est une chance des pépites ñoo xamante ici. patriotisme mënoo koo natt ba weesu parce que nous avons ay nationalité yu ñu am bàyyi ay réew yu pour football c'est pays d'origine mais qu'on leur donne la chance mm-hmm. démb qui euh, c'est Kouyaté mention spéciale hein il a été meilleur joueur ba bi muy génn si terrain ba bi muy génn c'était le meilleur il a pleuré après la défaite ça veut dire que ñom ñoo la gën a bëgg ils ont et puis ils ont tout donné ils ont tout donné dafa am loo xam c'est des stratégies donc nak dañuy wax na si ñëpp japp pour que ñu jëli ji ndam li manko ko wuti ji ndam li bobu ñuy wax deugantane ki soit fi fi le gën a doonee dëgg ci biir réew mi. ñu ak ñene feulé ñu manqué outil ji ndam li. parce que des fois je sais de quoi euh, de quoi je parle ah. nañu manqué ñun ñep ñu outil ji ndam li mais que Aliou c'est aussi euh, na rasta yi sori nopp yi touti pour muy deug parce qu'on a <laughs> besoin de victoire. Mais, mais, mais <laughs> justement, il y a, il y a 6, 7, 8 mois, nous avons tatchu la même équipe nationale. Nous avons tâché de féliciter euh, Alucis et de ça par la force des choses, El Tactico mais hmm. nous nous devons mais tu sais Simon.